Ah, boo ko séentoo taalifkat walaay fekk ko fa ndax su ko neexoon nañu lëngoo nañu deux ans waaye dégg nga nanga ko faram fàccee nee na lëngoo naak yow ñaari noor ak ñaari nawet boo ko tënkee day doon deux ans démb ba tax ñu naan tey te ñu démb ba nu woyee lépp nee naa ñi tayit bu ñu ñëwee nañ jéem a rafetal rek ndax démb neexoon na day sama gaay ça se passe sur la 97.8 Top FM la meilleure radio musicale du Sénégal maar may se bigé a se bigé maar aller retour Thione Ballago Seck jongo ma jógal dago waaw